bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu asbaxnaa wa asbaxal mulku lillah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar allahumma innaa nasaluka xayra maa fi atalum wa xayra maa baad wa naudu bika min charri maa fi atalum wa charri maa baad wa naudu bika min adabin fi lxabri wa adabin fi naar mbokk yi Sud seen rajo ci waxtaani fajar mi defal fajar jot waxtu wi dellu si na ci kàttanu sunu borom tabaaraka wa taala ji ko defal si ngeen ci ànd seen mbokk Alioune Sall ginnaaw ba ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke Sylla mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara sunu xis sa Balxiis la reine de Saba professeur ñu ngi tolloon démb ci Moussa Njuburi mi ngi defal compte rendu Suleymaan Suleymaan mi woon yàlla dama bëgg nga may ma nguur goodul may kenn sunu boroom ne ko du sama logique danaa la ko may nag ndax du ma delloo ñaanu kuy ñaan waaye tabarkàlla lu ne mën na ci nag mu ne bëgg naa mu jox ko waaw bu yonent bi ñëwee alayhi salaam ñu ne ko doo ñaan nguuru Suleymaan ga mu ne ruus naa ko lu xew mu ne su ma ñaanee dañ may may nguur gu ëpp gañ ko mayoon te def ne woon dafa bëgg ñu may ko nguur guñ dul may kenn di saaba yëpp da di si ngéem jooy waaw mu ne rus naa ko ndax ñoom ku mësa jiitu loo def ku ñëw sa ginnaaw du du du effacer la nga def déedéet moom la moom la euh, tubaab yi wax état continuité la waaye tubaarkàlla loolu la yónente ba wax ndeysaan muy rus naa ko kon Suleymaan nguuram googu dégg ngeen bokk na ci li ci xew waxtaan wu rëy wii am picc ko doon def <laughs> seet picc ko doon def hmm? waaw am picc ko doon def nun nañ ko jéem a jàpp ci kub-kub ndax dañu ne ku ko lekk eh, mookal alxuraan yomb la xaw a dëgg la am déet nag waaye nun ci sonni woon la tabarkàlla dongoy mag ña ñooñu ko doon wax ñoom Cheikh Ñang mii ci kër Mbay Fall ak ak ak sëñ Mbay Sàll mëla ca mbaaw <laughs> ca mbaaw ñu ngi ci dégg dëkk eh, ci penc mi di ma dégg ak Mor Gueye mëla ca yéeri ay sunu magi daar la ñu won yal na yàlla sàmm leen mu nekkoon démb bi ñëkkati jataay bi dañoo tolloon ci tucc miy wax li tee ndaw see jub te soxla ku ko ca xettali waaw la tee ndaw see jub te soxla ku ko ca dindi ndax léeg-léeg nga romb oto bu can walla bu ngiro dafay soxla lu oto bi li muy man mën a dem day soxla lu ko ca dindi tubaab baa nga koy jéem def def ko aw vitesse wu ndaw woo xam ne boo duggee ci suuf si moom ngay def mu jéem laa dindi nit bu cangee ci dara nit bu cangee ci dara dañ koy génne ca lam cang tegaat ko ci tali bi mu dem waaw danaay faral di wax léeg-léeg waykat boobu ñu wax njaga ca wayam ya waaw mu doon mu doon junj daw ko wéradi dégg naa ko ci wayam mu mu ne daw ko wéradi ndeysaan ku wéradi mooy ko can doomu aadama yi dafa am ci ñoo xam ne seetaane moo leen di moo leen di jàpp ñu can ba bonuñu de déedéet yàlla bindul nit ku ba ndax wala xadd karam naa bani aadama ñun ñëpp ci dugg wala xadd karam naa bani aadama ñun ñëpp ci dugg ki njàpp ne baaxut ak ki njàpp ne baax na ñépp a ci dugg ki njàpp ne baaxul dafa can allahu akbar dafa can oto yépp nar koo romb na ko lenge ñëw dindi ko ca can ba mbaa ay mbokkam wàcc wàqi ko walla walla walla waaw lisaan ma mësa ànd maag euh, Dieynaba Diallo yenn ba jàll mële ca ndeysaan unité unité unité quatorze defe naa la waaye daal jeex na ba jàll mi ngi ci daara yi yaa nafisa mënumaa dawal Mercedes ba dugg ca suuf sa <laughs> gone yi di mu puus ba jeex na ba jàll di jooy ndeysaan xale yi ne duñ dëpp mukk li fekk jeexalu ma suuf si waaw mënuma suuf si mayit <laughs> kenn mësu koo gisi rek yal na mu yàlla yërëm xale yi topp ma di puus ba jey na ba jàll du jooy ci biir oto ba ndax xale dañ na ko duñ dëpp mukk li fekk yaa ngi ci suuf si su ma càngee rek nu ñëw te te te te boobu Modou Mbuub maa ngi koñam waaye yëgu yëgu yëgul ne maa ngi koñam <laughs> ne kon xam naa mu ñëw <laughs> defi fexe ba ma génn daw ko wéradi ñu san Suleymaan picc maa ngi koy nettali na ko femme bee dafa wéradi te boo ko bàyyee ca wéradeem ngële seytaane jël ko te su ko jëlee fa saddahum ani sabil dana ko gàllankoor digganteem ak li baax te yit góor ña ko topp ñëpp dañ koy topp jigéen ña topp ko ñu ànd wéy te kon du baax te yow nag am nga ci pexe waaw te yow am nga ci pexe defe naa dégg ngeen jigéen jooju ñuy wax Rabia al Adawiya ba ba waa ji wéradee ba dugg këram di sàcc hmm? waaw ba waa ji wéradee ba dugg kër Rabia al Adawiya di sàcc Rabia al Adawiya néew yuuxuwu ko kon ma ngay daw ko wéradi yuuxuwu ko de déedéet nanguwut la mu yorit daf ko fekk mu jël benn gaz ci misaal gaz la bu maam jaara boobu def neuf kilos nga xam ne ñëpp a ko soxla moom la sàcc ba doon sàcc pour teel koo jaay ne ko dëng nit yenu ko waaw ndeka fi muy jaar fa la Rabia nekk mu ñëw toll fa rek Rabia ne ko li nga jël nii dafa diis àggal suuf mu àggu suuf mu ne ko li nga jël dafa diis te boo ko gàddoo jërëgut ngay wër da sonn ndeysaan sàcc bi ne ah mu ne ko waaw am na fi yoo xam ne woyof na neex naa jaay waaw woyof na neex naa jaay waaw di tekki lam bi ci loxoom jox ko léegi léegi la sàcc ba ne waaw mu tekki benn lam bi jox ko tekki jaaro ya ak caq ceen nga jox ko ne ko boo jaayee yii moo gën a yomba jaay ci lii ceete sàcc bi dékkal ma ñaanal la sàcc ba ne ko jorul ñaan ndax diwuma fenn adoo ah, ñibbi mu ne ko mukk bu ma yi nañ ma fekk fii loo am ma yow fii ne ko dara ci daal moom mu ne ah, mu ne ko fi lay des ndax samay bokk bu ñu ma defoon nii ba ma bàyyee lii yàgg na allahu akbar ci waaw daw ko wéradi na ngeen ma baal tabarkalla ah picc mi li muy wax Suleymaan ci pénc mi lépp dara lu dul demal ndaw sële nga jëli ko bu ko defee nga xettili ko denc ko soxna xettili ay bokkam xetli ñu ko wër ñépp nga xetli leen ndax ak duggam ci lii ngay woote day tekki dugg ak ñi ci gannaawam ñépp waaw seetetetet mu ne ndaw si Moussa ñu bëri ndaw si sikk si du ci moom su jootal jant bi du ci moom dafa am ku foor ku rëy ku ñu wax moo fa dugal loxoom léegi nag bëri la seytaan yow nga dugal fa sa loxo jéem a defar lim yàq ñu ci penc mi jàngale coono yépp loolu lañ ko teg waaw loolu moo daloon suñu sëriñ si woon ci réew mi te bàyyi fi seen njaboot radiallahu taala anhum ñoom loolu la ñu mooy wa zayyana lahum a amalahum muy benn fasadum an sabilillah muy ñaar résultat wu ñaar affaire yooyu mooy fahum laa yahtadun duñu xam yoon wi fahum laa xam yoon wi waaw fahum laa yahtadun mu ngoog gis nga allahu akbar yàlla noonu yàlla dimbale waaye <laughs> gis nga àdduna àdduna lii Moussa Njuburi di wax du xewi mukk ci du jóg ci pénc bi waaw Moussa Njuburi nag ne ne ne ne ne léegi nag dama am ñu mu ne ko mu ne benn proposition laa am benn proposition laa am dem naa tàggoowuma ginnaaw jéggalu gi lii laa fa jële ndeysaan allahu akbar mu ne mu ne Suleymaan dem naa te tàggoowuma fa ma demoon lii laa fa jële waaw bëggu dem te duma tàggoo ndax yaay sunu kilifa waaye tolloon na foo xam ne fii ñoroon na ci man ñor goo xam ne gii dem rekk ci desoon ndax booba yéen ci audience yéen a ngi nettali ay yëf te duy teggin ma ñëw xuus ci nit ñi di wax ca kaw wala nangam ak nangam ndax walaw annahum sabaru xataa taxruja ilayhim la kaana xayran lahum oh. <laughs> allahu akbar mu ne ko lii sa préposition mu ne ko allaa yasjudu lillahi allazi yuxrijul xabaa waaw yasjudu lillah lu tax duñ su jóotal yàlla waaw wala ca meneen pir ma gàllankoor nañ leen ba ñoom duñ si jóotal yàlla bu dee proposition bi nag mooy allah yasjudu lillah mu ndax duñ si jóotal yàlla ma ne bu doon ca beneen ba nag mooy fa saddu an sabila wum laa yasjudu lillah ba duñ si jóotal yàlla ñaari pir yépp da koy jàpp tabarkàlla borom daara ji mën ñu ko doon wax Cheikh Mouhamadul Mansour rahmatullahi alayhi borom ma dem dina ko doxal allah judo lillah lu leen tee su jootal yàlla mu ne yàlla mii nga xam ne fu fepp làqu mën na koo génne pour picc yi waaw waaw euh, professeur picc maa ngi nettali lam gis te buggut a génn ci dominam mu yemale wax ci lim xam yuxrijul xaba xaba mooy fépp wi nekk sa kër yow professeur fi am suuf ak fépp wa nekk kër euh, Mor Xuja ma nekk cël ma xam bàkkol fépp wi picc mi daanaka mën nga ne moom rekk moo gën a mën a gis wala moo ganaar li leen koy tax a gis nag dañuy gëstu yoxriju alxab alxab waaw mooy fepp yi picc di gës pour gis ko allahu akbar picc mi buggut a génn dominam moo tax wax sa xalaat émission man ni ma yitteele kenn mësu koo gis <laughs> ndax wax sa xalaat mir waaw wax sa xalaat mir atun waaw lil mujtama benn seet la boo xam ne pénc mi ne ci gis seen bopp waaw benn benn émission la boo xam ne gars yi dañ ko tuddee wax sa xalaat wax sa xalaat ci tomb bi ñuy wax waaw su ko defee risque dugg wax xalaatam keneen dugg wax xalaatam <laughs> keneen dugg wax xalaatam tabarkalla ba am léegi groupe boo xam ne mooy groupe wax sa xalaat nga xam ne mën nga ne daanaka li ñuy am gan bariwul suñu uddu suñu ubbee ñooñ ñooy dugg wax seen xalaat waaye la man de émission bi lekk léeg bu ma ko ratee sax damay xaw a tabarkalla waaye daal musañ ju bëri moom daa wax ci lim xam mu ne dañoo war na su jóotal yàlla mi nga xam ne fu fepp làq mu mu mu génneel nu ko nun picc yi ak ganaar yeeg yu ñu deme foofu fepp làq mu génneel ñu ko waaw àdduna dox nag léegi ba ganaar <laughs> ganaar tabarkàlla léegi nekk chef hmm? nga tëj ko ci kaaf waaw góote yu bari ne leen deel leen nen déngeen ñu ne waaw mais nag noonu au condition da def ay million ci ñun nu nelal lay million loolu la ganaar yi wax léegi <laughs> waaw da def ci ñun ay million ñu nelal ñu nelal la ay million séen naa bërki démb ci lu ñuy nettali ganaar yoo xam ne seen borom ñu ngi koy nelal nenal onze millions par jour la ko ganaar yee nenal onze millions par jour bu néew <laughs> loolu de su ma ko amoon léegi te sama cinquante deux milliards yi mat onze millions par jour comme bekkaay nangu wutal combat <clears throat> te Aliou Cissé sélectionné wu ma <laughs> waaw waa Liverpool wóoxunu ma moo tax milliards yi dajale ko day jafe <laughs> c'est yi dajale ko day jafe <laughs> kenn mësu koo gis rek hmm? mu ngoog picc maa ngi def proposition bi mun na yàlla mooy ki nga xam ne yoxurjul xaba waaye mbokk yi yàlla mi nga xam ne yoxurjul xaba ak li tuyóor ah kayfa laa yuxrijul xabaa li li rijaali aw aw awin linnaasi waaw fi maanan axar sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum daana wax ne suñeel professeur suñeel ñu ne ko waaw mu ne borom kër day jaaxle ba jàpp ci boppam ni bu subaa du baax nee na suñeel romb koy waaxu mu ne ko foo jëm mu ne ko xanaa wuti lu ma reere mu ne ko ci lëndëm gii mu ne yàlla dara lëndëmul ci moom dana ma jox lu ma reere maa ngi dem te ñëw <laughs> sëriñ Cheikh mu ne loolu la ñu suñeel di jàngal loo jaaxle jaaxle rek suñeel rombal moom dugg ci lëndëm gi dem wuti yow da nga xëy bëgg a tëdd wala nga xëy naajee xëy am na ñoo xam ne duñu xëy mukk mu wax la ko tey am na ñoo xam ne tabarkàlla yoor yoor mooy tax ñu jóg dem fa ñuy fa ñuy waxtaane bu bëccëgee ñëw bëgg añ tabarkàlla ala kulli xaal picc mi mu ngi wax moom ci lum xam nun ñëpp nañu wax ci lum xam waaw Maodo Faye mi ngi ci rajo Sud FM Hadj Maodo yàlla <laughs> yàlla yokk wér dana kuy def loo mënut ñu lay seetaanee njëkk sonn <laughs> wax na dëgg de waaw mu ne yàlla mooy génn loolu fi samaawaati mi ngi koy génn ci asamaan wala ardi mi ngi koy génn ci suuf. fi samawaati mi ngi koy génneel ñu kawe wala ardi mi ngi koy génneel ñu suufe patron yi liñ am yàlla leen ko jox surga planton yi li am yàlla leen ko jox waaw waaw patron yi liñ am yàlla leen ko jox waaw ñi yilifeeg ñi yilif ñëpp kenn ku ci nekk la nga yor yàlla la ko jox maa la ko wax de picc mi mu ne nag ma jeexal ndeysaan wa yaalamu maa tuxfuuna wa maa tulinuun ay mi picc waa ji li mbokk yi xam naa bu ne ndox goog dana mi picc a goog waaye tabarkalla mu ne wa yaalamu te yàlla moomu nga xam ne moom laa bëgg man picc mi nu àndu nu ñëpp di ko sujootal xam na maa tux fuuna li ngeen nëbb wama tu'lun ak li ngeen di feeñal ñëpp yi gis ñaar yëpp la yàlla xam waaw moo tax fii ci alxuraan am ab sujjóot nga ne këpp ne yàlla gàcc ngaalaama suq mi ci bàllaagu barke ji mi ci ñaan bu fekkoon danañ ko taggee yàlla man xaw ma sax lu may wax waaye li ma waxoon sànq rek wala ci bindub démb bi ci euh, tabarkàlla euh, xunóotu fajar xunóotu fajar seet xunóotu fajar hmm? waaw waaw ndax fajar du ñëpp a koy julli du ñëpp koy jullee ca jàkka ja mukk du ñëpp julli ca heure ba maax la ko tey yow mi yàlla baaxe ba boole la ci ñuy julli ji imaam xonóotal la xonóot gu réy googu waaw ne sunu boroom nastaxfiruka wa natuubu ilayka ndeysaan yàlla yaalamu ma tuxfuuna wa ma tulinuun picc ma daal di koy tàgg nag allahu laa ilaha illa hu rabbul arshil azim hmm? léegi la waxoon ndaw sax wala ha arsun azim loolu nag amul alif amul laam fii nag mu ne rabbul arsil azim mu am alif ak laam boo ko laajee Serigne Samba Ndiaye euh, euh, Touba TV mooy la laay <laughs> alxuraan a ngóog waaw suma góor gëla ca euh, wala wajur wala ca cene ba Serigne Cheikh Ahmad Tidiane boo boo xëyee boo ne arsun azim mu la xam nga ñaataa ci am ñaataa ci am taara song taara mu laa mun la na nàngam la nii lañ koy tënkee daal la koy jox ct allahu laa ilaha illa hu picc mi nee na ku dul yàlla doo yàlla picc mi nee na yàlla doo yàlla leneen lu doon yàlla nekku fi yàlla dong yàlla allahu laa ilaha illa hu moom nag rabbul arshil azim sees dëgg ca moom la yem picc mi daaneel na euh, assemblée bi ñëpp waaru ña fa jot a ñëw ci ay gouverneur ki ministre ki way seetaankat ñëpp waaru ministériat conseil économique yi ñëpp waaru hmm? léegi nag Souleymane a war a jël kàddu gi wax ci turu pénc ma wax ci turu mbooloo mi jigéen jële moo yilif yilif ñële góor gi moo yilif ñii picc mi mooy coordinateur bi moo war a liggéeyu ndaw sële ak liggéeyu góor gi ndaw sële moo yilif am péncam góor gi moo yilif am péncam picc mi mooy coordonnateur bi il coordonne euh, les, les deux peut-être nu lañ koy waxee <laughs> jubbanti leen cëtëtëtët ndaw sële moo yilif penc mam nekk waa ji moo yilif penc mi mu nekk Moussa Ndiouboy jëli nay information pour coordonner diggante lële ndaw say liggéey ak li kii di liggéey def na ko ci maandu wax na lam ca xam ak lam ca gis def nay proposition am jeexal na kàddoom jeexale ko ci allahu laa ilaha illa hu rabbul arsil azim waaw ci loolu la ko jeexale léegi nag Suleymaan bun daawuda moo war a jël kàddu waaw tey nag les <laughs> ci waxtu bi kàddug Suleymaan gi xaju ci xanaa dañuy ñaan yàlla mu may nu dund ba ëllëg te weesu ko bu ko defee Suleymaan jël kàddu ndeysaan mu mën a am temps bu yaatu noo ci weeru mars mooy sunu anniversaire man mii toog ak lenn ci yéen waaw waaye mooy journée bi ñuy jagal femme yi ci la nekk le 8 mars journée internationale de la femme xam naa femme yi léegi bàyyi nañu ndagaraw la ceeg taasu ci dañ koo soppi buñ ci àggee dañ ci waxtaan incha allah sunu mbokk yi xëy ci xibaar ñoo nekk ni taxaw yor seen i këyit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar yi tubaab ko ci wolof fu leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii ak suñu sponsor bii yàlla yàlla defar seen i mbir defar suñuy mbir